mais xam nga emploi des jeunes sur toute l'Afrique sur toute l'Afrique c'est le même problème soo amee population jeune boo xam ni jeunes yi il constitue plus de cinquante huit à soixante pour cent jigéen ñi naka noonu y a problème alors il faut faire l'analyse structurelle de problème la pour mën a ñëw ci problème boobu booru ngaay ngaay li li mu fa am muy jafe-jafe ci xale yi moo am fépp moo am Sénégal moo am ci pays yëpp lu ko waral bien que ñun ñoo yor li nga xam ni moo mën a relancer économie mooy artisanat mais artisanat fépp la am ci Sénégal artisanat c'est plus de trois cent yi quelques métiers mais ñun ñoo yor euh, cordonnerie yi vannerie yi ñoo ko bokk ak sunu communes ñu wër ay meewaan broderie yi ñoo ko yor léegi li fa nekk ci ay atelier mën na trois cent ñetti téeméeri atelier yoo xam ni atelier bu nekk di nga mën a defar loo minimum di mën ngaa defar ñaar fukk ba ñeent fukki paire ci journée bi. mais xale yi dañuy xool ni li nga xam ni moo impacté secteur bi moo tax ñoom liñ doon xaar ci métier bi. léeg-léeg gisuñu ko. moo am ci ñoo xam ni dañuy tëj seen atelier daal di dem mbëkk mi nekk lu grave mais loolu euh, euh, y a beaucoup de problèmes parce que emploi du artisanat bi rek moo mën a jox emploi bi que li ci ëpp nag. moom moo koy joxe parce que moom la wax économie informelle et cetera li ci ëpp moo koy joxe mais gis nga liggéey dëgg-dëgg pour que ñu mën a satisfaire la demande des jeunes il faut que ñu changer de paradigme il faut une ñu changer de paradigme et qu'on change même de cap parce que il faut que l'on relance le secteur primaire l'agriculture et l'élevage parce que euh, problème yi ñu am yëpp euh, je parle sous le contrôle du doyen qui est l'analyste <laughs> donc euh, problème yi am yëpp mooy D'abord, nous n'avons pas de contrôle sur le marché. Nous n'avons pas de contrôle sur les marchés et nous ne produisons pas assez. Donc il y le problème de l'agriculture qu'il faut véritablement révolutionner. Et su ñu amul ay industrie amuñu un secteur privé fort contrôlé par un État fort il nous sera difficile de fournir suffisamment d'emplois et d'employer les jeunes. Moi, mon credo, c'est de booster la production au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage pour qu'on puisse transformer nos produits, pour que nos produits ne soient pas euh, euh, sous le contrôle de ceux qui achètent. Parce que ceux qui achètent imposent leur prix. Il faut que l'on transforme nos produits en semi-finis. Et aujourd'hui, le tissu industriel sénégalais est un tissu assez faible, euh, tourné autour de l'agro-business. Aujourd'hui, nous avons des mines, nous avons des infrastructures, nous avons la ressource humaine. Nous avons une position nationale géostratégique à 6 heures de New York, 6 heures de, de l'Europe, 6 heures de l'Amérique latine, etc. Donc, euh, de, de, de l'Amérique du Sud. Il nous faut, il faut qu'on se ressaisisse, qu'on capitalise sur nos atouts et qu'on lance le booster véritablement de notre économie pour que sous nos PIB, on a 6,5% de tâches, dans nos 4%. Euh, Aujourd'hui, on va être peut-être au niveau de 4,2% ou même moins. et avec les risques investissement parce que risque politique yi dina tax investissement yi dina wàññeeku encore li ñu war a def mooy liggéey bi doo liggéey nag ba dem ba nekk ci bay yéeg montage bi mu des benn part pour nga taxaw ci kaw ñu nekk fi ci ay considération politique ou crypto personnel de le bàyyi pays bi mu dégorongale ce pays la campagne que nu que, euh, à laquelle nous allons actuellement bi ñu jëm nii campagne présidentielle pour muy opposition muy nationale le, le, le mot phare, c'est la préservation de notre État.